Ibrahima Top maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame soxna si. Ibrahima nga nekk secretaire permanent bu fédération nationale des associations euh, des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal déjà ñu lay laaj sa xalaat sa gis-gis ca la am ca Kaolack euh, candidat wu bac yi 64 candidats yi nga xam dañ leen a aj parce que dañu euh, fekkoon si ñoom ñu indaale seen téléphone portable naka nga gisee situation bi. waaw maa ngi lay gërëm soxna si parce que am na sax loo xam ne waroon naa wax ci xaj na ci tubaab mais échappé na ma mais bu ma bee permis quand euh, ma occasion pour moo gën ko feddali ci wolof mm-hmm. moo di xale yooyu nga xam ne dañoo ñëw ak portable ci école ba euh, man jama jàpp ne ñëwuñ woon ci école bi sax pour tricher xam nga euh, examen dafa metti dafay ànd ak stress xale yi dañuy bëgg bu ñu génnee ci calampa je zone parce yu bëri la ñuy def épreuve yi dañuy dañuy toppante épreuve yoo xam ne quatre heures de temps am na épreuve yu def trois heures yu def ñu benn épreuve dañuy bëgg gaawantu woo seeni parents xamal leen ne ñu ngi ci jàmm et cetera dalal am na ñoo xam ne ca village bi lañ jógee pour sori dañuy jógee ay contrées même pour ñoo def si examen ñooñu bu ñu yoree portable dëgg la nag tere woon nañu ko tere woon nañu ne bu benn élève ñoo portable wala boog bu ñu ñëwee à comptable ñu am fu ñu koy dénkaane man dama jàpp ne bu beneenee maa ngi suggérer le ministre de l' enseignement supérieur bu beneenee boo beneenee nañ leen di permettre sax ñu jël indi portable mais nañ koy def seen bureau directeur nañ wut benn espace boo xam ne dañ ko ñu numéro kenn ku ne sa portable nga bàyyi ko foofu ca saal boobu nga xam ne a jël sa portable parce que élèves yi aussi dañuy bëgg bu ñu génnee mën a utiliser seen portable pour d'autres fins am na ñoo xam ne dañuy woo seen waajur am na ñoo xam ne dañuy parce que examen bi du benn fa de du benn épreuve dañuy xoolaat mën na épreuve pas dans la salle mais en dehors la salle donc euh, dëgg la manquement am na ñoom jalgati nañu parce que tere woon nañ leen ko ñu def ko ndax nag am na li ñuy wax euh, bataaxal boo xam ne bi ministre enseignement supérieur génn woon na ko mu jaar la ko ci office de bac ak ci inspection d'académie ñun ñi jot nañ ci lettre boobu te partagé nañ ko aussi ak euh, parents d'élèves yi ak société civile bi donc kenn wax ne man yëguma ko wala xam ko wax nañ leen li ñu leen war a wax mais nag xale yi ay magum jëmm lañu la ñuy def aussi duñ ko doo ko mën a xam dëgg dëgg dëgg dëgg bu loolu weesoo également convocation yi nga xam ne jox nañ leen ko wax dëgg yàlla bu fekk li ñu wax te yàlla rek tax dañ ci bind carrément ne euh, portable bu ko kenn indi ca centre ba waxuma sax ca kaar ba waaye ca centre ba donte mesure boobu mesure bu diis la waaye waxoon nañ ko ba ñëpp d'accord nañu ba jël seen convocation bañ partagé ko donc bu loolu amee buñ deful leneen lu loolu rek donc wàcc nañu yoon waaye loolu tar wul nag ñun parents d'élèves bu loolu amee lu mel ni 64 élèves ñu jàppale ci benn lycée rek te te kooku benn lycée la donc y' a plusieurs centres à Kaolack donc on ne sait pas combien de personne ont fait la même chose dans les autres centres et à travers le Sénégal donc la euh, bi gën a illustratif rek la ñu wane mooy 64 yi fekk dafa bëri mais jàpp naa ne dans le Sénégal des profondeurs du ñàkk lu mel noonu am. may ñaan nag ministre de nationale euh, euh, maa ngi juum euh, ministre Abdou Abdourahmane Diouf mi nga xam ne xam naa ko bu baax a baax ndaw la ndaw ndaw bu am xam-xam la macha allah bu am yërmande la te kuy déglu doomu aadama la ku bëgg njaboot gi la waaye ku bëgg élèves man xam naa ko ndax xale ndax moom ci école yi la jàngee ba fi nekk lu am tey loolu la loolu ko yàlla yàlla macha allah yàlla yàlla lab cet waaye may wax ne ni sanction bi dafa dëgg dafa diis. parce que boo jàngee fukki at ak ñett ñu xëy benn bés ne loo nga jàngoon dem naax saay na loolu dafa metti dafa diis donte ñoo tooñ ndax nag buñ fàttali ne buñ fàttali ko am na ñu def ay faute ci prison yi ñi dañoo rey nit dañoo xëy xëy gracier leen ne leen jéggal na leen ñu xëy xëy na leen def lañu leen am na si maanaam dara toppatu leen ñoo ñooñu lañ mën a baal askan maag ñi nga xam ne ñii jotuñoo sax def ay faute ay erreur la ñu def kon maa ngi ñaan sunu ministre bu baax boobu doom jooju nga xam ne xale yooyu tey ñu war a sanctionné ay rakam lañu ñoo ngi sukk ci kanam kanamam rusuñu ko wax di ko ñaan ndimbal ak njëggal ci turu xale yi waaye ci turu parents d'élèves yëpp yi ci senegal rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk ci fédération nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal ñu gën ko xam ci FENAPES. Hmm. loolu mooy position officielle bu FENAPES leneen nag. ñun de suñu position mais lii ma la wax mooy position officielle mhm. ñun daal li ñu mën mooy ñaan njëggal ak ni ma d'accord nañu noonu ñoo tooñ ku tooñ nag mënoo lu lu jéggalu ak baal. voilà ko ñaan nag ku dul ki xam ne bi moo am njëggal ci loolu muy ministre enseignement supérieur di suñu doom di suñu jarbaat. ñu xam ko ci yar ak teggin te xam ne am nañu yaakaar ne suñu cri de cœur bii dina ko dégg te dinañu ñu ko bëggee ñun. voilà euh, laaj la leneen lu am solo Ibrahima Top ci concours général deux mille vingt quatre cent douze distinctions soixante quatre euh, euh, prix ak quarante huit axis ak accès site si meilleurs élèves yi lañ koy daal di jox naka nga distinction yooyu. waaw xam nga mënoon nañu am lu lool waaye am euh, na lu ko mën a justifier xam nga année ñaari at yi ñu jógee dafa nekk ay at yu yëngu yëngu lool ci wàllu politique te wàllu politique bi dafa duggoon ba ci biir l'école bi dugg ci parents d'élèves yi ci communauté bi rek en général dugg ci syndicat d'enseignants yi dugg ci jàngalekat yi sax kon njàng meeg njàngale ba ca waroon waxuma ne defuñu ko waaye des na lu bari beneen bi mooy kan li ñuy wax quantum horaire quantum horaire mooy waxtu yi nga xam ne waroon nañ ko jàngal xale yi mateewu matul comme matul nag la ñuy jàng ak am bu ñuy jàng am partie boo des kon nag xale yi bu ñu nee ba ñu am cent douze distinction soixante quatre euh, prix ak li ci des ay quarante et quelques actrices dama jàpp na sax loolu performance la ndax man jàpp naa ne bu la jaaroon yoon war nañu ma mën dem ay deux cent cinquante wala trois waaye comme que euh, teq-teq yooyu am na bu ñu amee lu mel nii dañ ciy jàpp te sante ko yàlla subhaanahu wa taala euh, beneen aussi euh, euh, mbir mu am solo pour année année académique deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq nekk année bu dal lan ngeen di suggérer autorité étatique yi. xanaa wax waxtaan ba juboo parce que autorité académique yi. du ma wax sax ñoom kese ndax ñoom dañoo teewal régime comme booy waxee autorité étatique yi mooy ñi nga xam ne jii mooy régime bi nekk en place ma jàpp ne ñoom bi ñu nekkee ci opposition bi dafa am digaate bu ñu defoon te jàpp naa ne ñu ngi ci yoon di ko réaliser wax dëgg yàlla te ñu ngi continuer di am ci ñoom yaakaar itam nag wax dëgg yàlla ndax bu ma xoolee ñi nga xam ne ñoom lañ jox euh, éducation muy monsieur Guirassy di suñu doom di uh, monsieur uh, Sare Moustapha Sare moom itam di sunu di sunu rak wala muy sunu jarbaar wala wala boog mu nekk ki nga xam ne kii mooy le ministre de l'enseignement supérieur kooku moom ñoo ko sunu doomu bopp la ñu xawal xawal ko sunu bopp bu baax a baax a baax Abdourahmane Diouf dañuy jàpp ne incha allahu taala bu ci seytaane duggul lu jógee wala mu jógee feneen lu jógee ci yàlla subhaanahu wa taala dinañ am am année bu apaisé ndax nag wax dëgg yàlla ñoom ñii xam ne ñoo ñëw tey am nañ une bonne intention parce que man demoon naa ci li ñuy wax revue déglu déglu naa lañ fa wax yëpp te ñun dañoo boole carré communauté bi moom dañ leen a beral loxo ñu wax ca lañ ca war a wax te jàpp naa ne giraas yi lañ ca wax yëpp daal dina ko jëfee boo ñëwee ci enseignement supérieur Abdourahmane Diop it def benn atelier fa la ca tali woo ci toute la communauté bàyyiwul kenn ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi gravité autour de du système éducatif ñu waxtaanee njàng mi ak njàngale bi ci enseignement supérieur mu jël mesure yëpp ne lu mu ca mën incha allahu taala da nga xam ne mu ngi seen disposition dina ko dina ko jëfee euh, euh, giraas yi moom wax moom ci ci loolu la dëkk kon dama jàpp ne incha allah année bu APC ñu ngi ci am yaakaar bu baax te syndicats yi aussi syndicats d'enseignants yi ils sont dans de très bonnes ndax ñoom itam buñu fàtte ne ay parents d'élèves la ñu ay ay jàngalekat la ñu dëgg la ay syndicalistes am nañ droit yuy laaj waaye itam ay parents d'élèves lañu waaw kon nag jàpp naa ne les les uns comme les autres bu ci ñëpp jàppee rek ak ak communauté bi incha allahu taala bu fekkee ne jàng mañ jàng bi rek mooy kër te ñu jàpp ne centralité centralité bi aussi mooy jàng mooy élèves yi. incha allah wala daañu am une année mhm. euh, beneen ponk boo am solo euh, ñenn ñi dañu jàpp ne faaw ñu introduire langue nationale yi ci système éducatif bi lan mooy yéen seen position par rapport ak loolu. loolu la ñuy mën lu tàcc ko juróom-ñaari loxo ndax euh, ñun plaidoyer boobu yàgg nañ ko porté au niveau de la fédération des parents d'élèves et étudiants du Sénégal FENAPES bi nga xam ne bii sunu sunu njiit bi fi newoon muy Bakary Badiane. yal na yàlla leeral bàmmeelam moo moom la doon xeex bu yàgg mën na ay kon bu ñu ba jamono ji loolu ñëw ci ginnaawam dañuy duñ mun loolu raxatu ko parce que nag langue nationale yi bu ñu fàtte ne mooy langue yi nga xam ne moom la ñu naan moo xam pulaar arla wala séeréer wala mandeng wala joola wala xeet bu mën a doon wala wolof mooy langue yi nga xam ne moom la ñu naan donc di ñu jàngal ci lang yooyu. day gën a gaawal suñu suñu xarañte day gën a gaawal di gën a mokkal aussi li ñuy jàngal waaye dañuy jàngal ci nasaraan ay tubaab wala ay ris ki espagnol ak yooyu ñëw ma duñ ci duñ ci duñ ci jàll ñi gën a xarañ ñooy jàng jàll waaye il n'est pas dit que ki ngay jàngal ci langue étrangère yooyu forcément dafa war a mën ci li nga koy jàngal mais bu dee ci suñu langue yi ñu nàmp ci suñu weeru ndey moom la ñuy jàngale jàpp naa ne di nga gis résultat yoo xam ne yi mucc lañu surtout nag jamono bi nga xam ne bii ay pétrole ak gaz ak yenn yenn richesse yi sol yi incha allah daal buñ ci jàngee ak xarañte yàlla mën nañu dimbale ba nga xam ne doo tegaan ni dara. Hmm. Euh, Amadou Lamine Sall écrivain professeur moom nag euh, jàpp na ni euh, jot na ñu def olof bi langue officielle du Sénégal loolu loo si xalaat. mais ku ne xam nga ne wolof nag mooy langue officielle bi. waaw langue officielle bu bu ñu waxantee dëgg boo demee ci mandeng bi boo demee ci joolaa bi boo demee ci ci alpulaar bi wala ci séeréer bi ci xeet yooyu yëpp kenn ku ci nekk yow dèjà yow demal nga sa bopp langue national bi wala amul ci xeet boo dem boo xam ne bi dëgg la ñu ngi conserver nag seen tradition ak seen coutume di wax seen langue waaye terewul it ñu ngi wax langue wolof bi ñoom ñëpp ko dégg langue bi nga xam ne moom ñëpp ko bokk nag lépp ñëpp la lu nekk ku ne da caa dama jàpp ne langue boobu nag wax dëgg yàlla wax na mën a nekk langue nationale muy lowal voilà kon nag Ibrahima Top ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi maa lay fay maa lay gërëm itam voilà ñuy fàttali ni Ibrahima Top yow yaay secrétaire permanent bu fédération nationale des associations euh, des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal jërëjëf Ibrahima Top maa